Euh, se parle français ou Olof Il faut, faut connaître tous les salles. Il y une dette de 900 000 sur la dos. noonu la wala noonu. <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi El Hadj Malick Ndiaye ak euh, monsieur le ministre may Maymouna Dièye ak mbooleem directeur yi nga xam ne teew nañ ci salle bi yëpp ak euh, mbooleem PCA ak kilifa yi nekk ci taal bi yëpp di nuyu sunu sëriñ euh, sëriñ Cheikh Thioro Mbacké ak sëñ Saliou Mbacke Balla Dior ak sëñ Amdi Mbacke ak imam Dramé ak euh, Cheikh Omar Bamba ak mbooleem kilifa yi fi nekk yëpp ak jawrin Ndiasse Sidaat ak mbooleem daal njaboot gi fi nekk yëpp ñoom Ibrahima Gueye nay leer euh, xam naa liñ ciy wax du bari euh, li may wax rek mooy demande sociale noonu lañ koy waxee wala demande national Père Djibi Gueye Ndiaye ngay wax loolu demande national la voilà parce que li nga wax fii yow waroo di noppi voilà parce que vraiment euh, wax xam da cee baax te li ngay wax xam nga ko kon il faut nag léeg-léeg nga waxtaanal ñu dara ci suñu waa ji président Ousmane Sonko waaw euh, li may njëkk wax nag dina xaw a génn jataay bi tuuti waaye du ko sori mooy ku nekk gis nga démb li am muy lu raar ci nguuruk africain ñu jël nguur mën a toog jàkkaarloo ak askan wi ne leen lii lañ fi fekk te muy dëgg di lu leer te ku dégg monsieur Al Amin démb li wax mooy lii kat aw fit moo koy wax ak jom waaye wax ko neexut parce que soo ko waxee ñi la war a lebal ëllëg ak ñi nga war a jëflanteel ëllëg mën nañ laa ragal waaye nag faw askan wi xam ma ne loolu de lañu ñu président Ousmane Sonko waxoon mooy buy neex dañuy wax dëgg buy naqari dañuy wax dëgg waaw ku nekk nag gis na ne muy raar suur yoo xam ne président Ousmane Sonko nekk na ak askan wi lu mat ñaari waxtu te kenn gisul bëñam démb nag moom Ousmane gisuma fenn fu mu reetaane waaw xaw ma daa bëgg xaalis xaw ma càcc gee metti mais démb moom beneen Ousmane Sonko lañ gis waaye nag vraiment démb li ñu ñu wan li ñu ñu wan te wax ñu ko muy ay chiffres loolu kenn mënu koo gis sa xol di neex loolu mooy dëgg parce que plus de ay six cent quelque milliards mille huit cent quelque milliards yoo xam ne dañoo disparaître boole kook bu doon loolu rek nga mën a wax ne c'est normal xëy na sax mën naa yem daal mais boole kook état boo xam ne jamais mu wax dëgg aw askanam jamais mu wax dëgg ay bayeeram loolu mooy kuy ñëw lu yëre te joxe woo sa sa sa sa sa chiffre normal bu la tailleur bi ñawalee ba noppi doo ko mën a sol kon ñun Sénégal gi Macky Sall doon jiite ak Sénégal gi ñu nekk sax bokkul parce que chiffre yi ñu doon euh, gouverner normalut ku nekk xam na ne nag fii suba di ngeen gis yenn mercenaire u micro yi ay kalaasu Yirim Seck kalaasu Madiambal Diagne ay Badara Gajaga mooy mooy góor yaay may ma ñeex yooyu tàppet yooyu xam nga xam nga bu ñëwee lu ñuy wax xam nga bu ñëwee lu ñuy wax non ay chiffres garaawul Amérique sax ay chiffres am du normal loolu lañ ñuy wax ak naan Amadou Ba ku ne xam na ne lim xamee chiffres ni mu liggéeyal Sénégal yooyu lañ ñuy bëgg a wax ak naan waa affaire bi kat bu normalul woon kon Cheikh ba Ousmane Sonko du ko jël te ku ne xam na ne Cheikh ba lan la jiite woon directeur programmé de budget mooy koo xam ne budget bi lay jël programme ko ba ministre bi jot ci yóbbu ko conseil des ministres foofu la ab liggéeyam yam pour sénégalais bi may déglu xamul loolu mooy lan mi ngi mel ne nga am sa xew dem woo xel comme baas ñoom mën nañ laa programmeel xew mi baasal la ko ba mu nice waaye du ñoom ñooy ngénte bu bu dara xewee ci ngénte li waaw yaakaar naa ngénte li moom ngénte li moom bu neexee ak bu naqaree borom doom ji lañ koy laaj lu tax ngénte li neex ak lu naqari waaye yow ñu ne la sa ngénte li neexut nga naan woo leen ki baas baas bi loolu mooy tapale tappale Cheikh Dibadou ministre de la ministre finance Amadou Ba Mamadou Moustapha Ba ak ak ak euh, Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ñooy borom xew mi nañ génn wax ci seen xew te bu ñu yebal ci borom baas ay sàcc lañ yu mag yu mag a mag sax waaw léegi nag beneen po beneen tomb bi nga xam ne moom laay jël mooy dañoo jëm ci élection législative waaw waaw sàcci la Amadou Ba sàcci la Amadou Ba sàcci la Amadou Ba sàcci la léegi nag dañoo jëm dañoo jëm ci élection législative muy élection yoo xam ne dafa mel ne son excellence Bassirou Diomaye fay dañu ko jox fetal ne ko demal rëbbal ñu ba noppi bëgg a jël bal jox ko bal yi ne ko demal rëbb pour nga mën a jam yaakaar naa nag ku am ab rëbb di ko rëbbloo jox ko fetal gu baax am keneen koo xam ne amul fetal amaanul fetal naan ñëwul jox ma bal yi kooku dalaa bëgg a nax kon fet ki yor fetal gi moom la ñuy jox bal yi muy tiire di jam kooku mooy Bassirou Diomaye fay li nga xam ne nag dinaa ko wax fii mooy patriote yi am ngeen liggéey bu mat liggéey ndax kat 1999 ak tey jii ab parti politique mësul dem élection législative dem ak parti moom rek loolu mësul am élection yii nu gañe dañ koo gañe ak coalition bii yoon nag Pastef mooy dem ak bi ah, ak ak ak ak carte boppam suñ fi amee lu ndaw waa PDS ak coalition bi danañ génn ne ñoo leen gañaloo woon pour loolu bañ a am nag 54 pour cent lañ amoon ci élection yii nañ ko ñoqali ba 70 pour cent pour ñu xam ne benn parti moo am pour Sénégal bu loolu jàllee nag ma doog a ñëw ci li ñu fi dajale ci ñaari baat rek mooy li ñu fi dajale yaakaar naa ne bu fekkoonte ne li am démb dafa amoon ndaje mi dafa amoon ta loolu amul dinañ wax ne est-ce que liñ doon xeex jaroon na ko wala jaru ko waaye yaakaar naa ne man de demoon naa rëbës demoon naa kaso fii ñu baree baree bari dem nañ kaso waaye ku gis barki démb son excellence Bassirou Diomaye Faye discours bi mu def ca kanamu américain yi ci kanamu am adduna bi yëpp dinañ xam ne ñun ñi doon xeex pour mu nekk président de la république liñ doon xeex pertuñu ko waaw ku nekk gis na ne ba fi président Ousmane Sonko toogee ak tey rigueur bi mu am ak ni muy yore réew mi ak démb li mu leeral ci kanamu askan wi lépp leer ku gis loolu di nga xam ne li nga doon xeex wallahi la sim pertoo ko te billaahi yàlla laay waat wallahi la asim bu Ousmane Sonko jëndoon galaas bu Ousmane Sonko jëndoon galaas ñu jóge deux mille vingt rek ak garde à bi métti mu ne gars yi kat xeex amul solo maa ngi dem nekk premier ministre Macky Sall billahi Sénégal daanu ba faw wallahi laasim kon bu Sénégal yaakaaree ne dina dem sol ay dàllam ñu naan dina dem ak du dem fit ak ngor ak jàmmaaruk président Ousmane